asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe euh, ak fu waay mën a nekk ci adduna bi ñu di leen di ràññee ci waa diaspora bi muy julliti yàlla yi nekk ci diaspora bi rawatina taalibe yi sëriñ Tuubaa yi Baraka moom sax Ahmadu Fadal mi ngi leen di nuyu ci kilifteefu sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér sëriñ Abdou Baraka am kàddu yu mu doon yëkkati jëma ci ko ci jullit yi yàlla yi nga xam ne si eh, niñ ko waxee mooy waa diaspora bi eh, rawatina waa kër Seexul Xaddim rawatina waa kër Seex Modou Fadal rawatina soppe sëriñ Fàllu yi sëriñ baa ngi leen di masaw bu baax a baax eh, di leen yónnee ay kàddu yoo xam ne kàddu yu yërmande la kàddu yu ñeewante kàddu yu bokk yéen li nga xam ne si ci jamono yi ñu toll ci lool yi ngeen nekk eh, mu leen di xamal ne rek na ngeen ànd ci ak xel mu dal na ngeen ànd ci ak Pastef ba leen Sëriñ Tuubaa jagleel ngeen ngeen bokk ci ak njabootam eh, Pastef ba leen yàlla eh, dimbalee woon ci sëriñ bi ba ngeen ñëw foofu di fi sàkku addiya ak lu ngeen yore seen njaboot di daan seen doole mu dégg feebar bi nga xam ne si ñu ngi koy wax ci àdduna bépp te eh, ni mu koy waxee ñu bëree bari am ci jaaxle waaye kenn ku nekk la nga gëm na nga xam ne fa nga ko gëmee rek loola amuñu ci ah, ak jaaxle ñoom ñun ñi nga xam ne dañoo farek Serigne Touba mu boole ñu ci boppam eh, mi ngi leen xamal ne na ngeen gën a amuk dal te dalal seen xel te xam ne xolam ak xelam ak ak ak jëmmam na leen leer na lépp mi ngi ak yéen lépp mu ngi ci seen kanam mi ngi ci seen ginnaaw li muy li muy dund fii. Eh, la leen bëgg a xamal ci seen jëmm yooyu xamal ne bis bu set waxtu wu nekk eh, mu ngi leen di xalaat di leen ñaanal eh, ci jafe-jafe yooyu ñu ko ñu koy tudde naam du jafe-jafe ndax sunu borom moo nu sàkk di nu wàcceel lu mel nii kon nag nanu nanu nanu ci ànd ak xale mu dal dana ñaan ci doole Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne si mooy buntam ci Sëriñ Touba te lépp lu mu ci ñaan moom am na ci yaakaar amu ci lu muy sikki sàkk yàlla bu ci kenn loru yàlla bu ci benn jullit loru ñi nga xam ne si du ñu jullit nañ leen ci boole ndax euh, ñëpp a war am jàmm ñëpp a war a mucc euh, ndax ñoom it bu ñu muccee seen mucc gën a wér kon nag yéen ñëpp rek na ngeen aasi maasi mucc ku ci ku ci yàlla dogal mu dal la ci nanga nga wér ak jàmm ba dir si waat ci njaboot gi ku ci kum ci dalagu itam na nga ko dégg rek mu ngi ñaan ci barkab sëñ Fallou ak fu waaye mën a nekk soppi sëñ Fallou yi taalibey sëñ Fallou yi taalibey sëñ Touba yi ndax ñëpp bu ñu xasee bu tudd sëñ Touba rek ñëpp a ngi ci biir waaye nag kër gu nekk nag euh, sëñ Touba dafa sàkk ay kër kër gu nekk nag mu wutal la ay jëwriñ moom mii di jëwriñ nag moom njabootu sëñ Fallou gépp mi ngi leen di bàyyi xel ci lii xam ne si ñi ngi koy wax ci àdduna bi te xam ne moo yéen a bokk na leen biir na rek waxtu wu nekk mi ngi leen di nemm ko di xool fu ngeen toll kon nag na ngeen ci dalal seen xel bu baax a baax xam ne du leen fàtte mi ngi mi ngi mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax nag di leen dénkitam ngeen gën a góorlu ba euh, seen pas-pas bu ko dara euh, soppi seen yéene ci sëriñ bi bu ko dara soppi seen yéene ci njaboot gi bu ko dara soppi adduna coow li bari na lool waaye yéen xool leen sëriñ bi rek bu ngeen xoolee sëriñ bi dox ci li sëriñ bi dox euh, xool li sëriñ bi digle ngeen def ko euh, incha allah jàmm rek ngeen am. waaye ràññee na leen yéen ñëpp xàmmee na leen ñëpp fu mel ni Italie nag du ci mën a euh, bañ a tudd jëwriñ bi ñi nga xam ne si moo fa nekkal njabootu sëñ Fallou muy alaaji Fallou jatara ak ñi nga xam ne si ñoo jiite daayira sëriñ fu mel ni Brésil sëriñ Cheikh Ndiaye ak ñi mu àndal liggéeyam sëriñ Touba ba Guinée Bissau sëñ Mamor Ba ñoom ñi ak sëñ Alaaji Badiane ñoom ñi nga xam ne si bokk nañ ci ñi eh, eh, jiite liggéey ba Espagne eh, sëñ Muudu Ba ak sëñ Mbàkke Njaay mi jiite njabootu sëñ Touba ga fa nekk yéen ñëpp ak Angleterre sëñ ablaay Jang mi nga xam ne si moo jiite daayira soppee sëñ Fàllu ya ak sëñ Ablaye mi nga xam ne si moo jiite daayira sëñ Touba ba yéen ñëpp ràññee na leen mi ngi mi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bàyyi xelit waa waa Abidjan yi nga xam ne si eh, bu tuddee sëñ Ma Gumba Thiam ak sëriñ Fallou joob rek eh, tudd na ñëpp bu tuddee bu demee Gabon itam eh, bu tuddee sëñ Baraka tudd na ñëpp. mi ngi ñaanal ñëpp rek waa France ak waa portigal waa Mali ñoom Bakary Yàlla Lamp Thiam bàyyiwut kenn waa Guinée Conakry. bàyyiwul kenn waa Amérique New York Washington bàyyiwuñu kenn ci ci continent bi ak sëñ Bada Fall ñoom ñi nekkee eh, Atlanta bàyyiwul kenn daal ak Canada taalibe sëñ ba sëñ Touba ya fa nekk mu ngi leen di ñaanal suñu boroom ngeen dellusiwaat ci njaboor gi ci jàmm ci ci ca kenn bañ a manqué rek ñu ñu ñu ne fi liggéeyal sëñ Touba waa Afrique du Sud ak waa Argentine Hollande Euh, waa waa Belgique euh, waa Allemagne bàyyiwuñ kenn ndax dong yi daje ne boo tuddee ñi bàyyi ñii ñu ne sëñ bi tudd ñu la ndax loolu wóor na sëñ bi tudd na ñëpp képp kuy jullit képp kuy taalibab sëñ Touba ak foo mën a bokk ci sëñ rek yaa ngi ci biir lii sëñ baa ngi leen ñaanal ngeen mucc ci